muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñoo ngi ci weeru koor weer wu màgg ak ay xéewalam ak ay njëriñam weer wi nga xam ne xéewal yi ci nekk suñ ko xamoon danañ mébét koor gi yépp sunu dund yépp nekk ramadaan tey ñu am fukki fan ci ñenn ñi ñenn ñi am ñeenti juróom-ñeenti fan yont yàlla muhammad nee na koor buy ñëw ñetti valise lay àndaale fukki fan yu njëkk yi mooy valise bi njëkk yërmande la awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira digg bi ñaareelu valise njëggal ñetteel bi wa axiruhu itqun min annaar suñ demee ba muy waaye jeex fukk yi mujj yi yont yàlla muhammad nee na ku ko woor ñu goreel la ci safara kon weeru koor a ngi nii ak xetam gu neex ak kanamam gu leer moom weeru koor mu ñëw di ñu woo naan yaa baaxiyal xayri aqbil e yow defkat lu baax bari lal yow mi doon def lu baax guddeeg bëccëg sa lu baax loolu continuer ko bu ko wàññi bu ko dagg mbokk mbokk yi pour ñu xam njëriñu weeru koor dëgg yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ne dañuy dën dañuy jënd crédit guddi ak bëccëg war nañ koo mën a xam ci mu yomb ci ñun bu baax a baax a baax a baax léeg-léeg agence yi nga xam ne ñoo yor téléphone dañuy jékki-jékki daal ne promotion am na tey ku jënd 5000 am 10000 ah weeru koor nag mooy weeru promotion soo ci defee benn tiyaaba juróom-ñaar fukk la la ko yàlla di fay soo ci defee naafila farata la ko yàlla di fay ndax loolu promotion la wala du promotion bu fekkee ab jullit rek bi bëgg tiyaaba weeru koor jot fekke ko nga xam ne naafila yi nga xam ne doonul woon farata nga koy def soo ko defee ci biir weeru koor farata la ko yàlla di yégal farata bi juróom ñaar fukki yoon lañ la koy fay ci ay farata mu nekk weer woo xam ne moom moo ñu woo nañu yéen ñiy def lu baax bari leen seen lu baax ngalawaay yow mi nga xam ne yow yaa doon moy wala yaa doon gàttañlu ngalawaay arrêteel yaa baaxiyal char aqsir arrêteel yow def kat lu bon li taxawal mbokk yi weeru koor a ngi nii waaye di ñu woo di ñu mooy tandikuloo yonent bi nee na kenn gënu la perte ki weeru koor dugg mu tàmbali te yëgaliwu ko kii kenn gënu koo perte kenn gënul perte kii kan ki fi waru ki fi weeru koor fekk te fexewul yàlla baal koy bakkaaram ñaar ñi kenn gënu leen a perte yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci weeru koor ci bisub àjjuma mu yéeg ci minbar bi di xutba bi mu duggee jumaa ji di yéeg di toog ci kaw minbar bi sahaaba yi nekk ci ginnaawam dégg mu ne amin amin amin mu wax amin ñetti yoon saxaaba yi daal di waaru bi mu jullee ba pare ñu daal di koy song fi mu toog daal di koy wër ndax ñoom lépp lu yonent bi doon def dañ koy leerlu mu leeral leen ko bu dee njëriñ ñu def bu dee safaan ñu bàyyi saxaaba yi ne ko tey gis nañ nga def loo xam ne musoo koo def gis nañ nga wax loo xam ne musoo koo wax mu ne leen lan laa def lan laa wax ñu ne ko da ngay dugg jàkka ji di yéeg ci minbar bi war a toog ñu dégg ngay wax amin ñetti yoon te xamuñu lu tax nga ko doon wax mu ne leen jibril moo doon ñaanal ñetti nit alkande ñetti nit yàlla buñ dugg ajana may wax amin kan mooy ku njëkk mooy ku fekke weeru koor woorul pour yàlla baal ko kooku yàlla bu mu dugg aljanna jibril moo ñaan yonent bi ne amin ñaareel ku dundandoo ndeyam ak baayam fexewul ba am ci ñoom ñaar aljanna yàlla bu mu texe jibril ñaan loolu yonent bi ne amin ñetteel ku dégg ñu ne muhammad te waxoo sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yàlla boo texe jibril ñaan loolu yonent bi ne amin waaye kan moo ñu yitteel ci ñett ñi mooy ki fekkee weeru koor ndax ci lañ toll nga gis tey ci dëkk bi nu nekk ay jullit yu dul woor di yeewu ci kay ay këri jullit seeni ndey ak seeni baay nekk jullit ay góor ak jigéen léeg-léeg sax mu nekk kilifa ci kër gi moom moo dul woor ñenn ñi di laye ne ñoom dañoo bokk ci yenn kuréel yoo xam ne seeni sëriñ dañ leen a teggil koor ñenn ñi loolu la ñuy laye ñu ñun dun woor te xam ngeen ne ponki lislaam juróom la ginnaaw ba nga seedee ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni dangay nangu taxawal julli juróom nangu woor weeru koor nangu joxe azaka nangu aji màkk juróom yi boo ci bàyyee benn yéeféer nga kon ku woorul yéeféer nga loolu wala leer sunu bopp war ne nañ sunu bopp képp ku woorul weer wii te amoo ngant wuñ la wax ne yow mi kan munoo woor tukki woo feebaroo dara jotu la lu dul da ngay layee ne nangam ak nangam yow yéeféer piir nga bu yeboo nga xam loolu koor kenn du ko fooye parce que ci ponk islaam yi la bokk kenn yu téye lislaam ba lislaam daanuwul koor ci la bokk kon weeru koor a ngi nii ubbi ay buntam yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu koor ñëwee dañuy ubbi bunti aljanna waaye ñu daal di tëj bunti safara waaye ñu daal di chaine shaytan aqbala wal muslimuna yatashawwaquna ila siyaami nahaari moom weeru koor jege na ñëw na jullit ñi di njëkkante pour woor bëccëg yi waaye naafila guddi yi yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na man saama ramadanan imanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zanbi yont yàlla Muhammad nee na képp ku woor weeru koor waaye dara taxul nga woor dara animé wu la lu dul ngëm nga taxaw guddi yi naafila ko yont yàlla Muhammad nee na yow yàlla jéggal na la sa bakkaar ya kon ni ñuy wooree di sonn nañu xam ne bu ñu ndogoo dañoo war a naafila mbokk yi tey di nga gis bu ñuy naafila léeg-léeg nga gis jullit boo xam ne danaan jàkka ji ñaata rakk la ñuy julli ñu ne jàkka ji ñeenti rakk ñu ne fee ñaata la ñuy julli ñu ne fee ñaar fukki rakk mu ne ah bàyyi leen ma dem fee fi fi am ñeenti rakk lu tax wala nga gis koo xam ne danaa day koy jaral mu ñëw ba ci imaam ne ko imaam na nga def ay rakk yu gàtt na nga gàttal rakk yi boo mënee jàng wal asri ak inna atayna dina baax mbokk yi kenn ci ñun laa wax kenn ci ñun bu daje woon ak ñaari nit ñu yor ay enveloppe di maye kee yor ay enveloppe 2000 kii yor ay enveloppe 100000 ci kan lay dem ku nekk tontu sa xel fi nga toog waa ji day joxe suukaru koor 2000 kii di joxe suukaru koor 100000 fooy dem beneen bi mooy boo ñëwoon ci rang ci banque. ñu yónnee la 500000 na nga dem nga fayeku ji nga ñëw fekk rang bi 200 personnes ñoo la jiitu te nga soxla xaalis bi c'est urgent da nga war a tiire tey da ngay rang wala doo rang soo rangee da ngay taxaw wala doo taxaw di nga taxaw muñ taxawaay boobu pour lan sa 100000 yooyu ngay retiré ci banque bi kenn ci ñun tey mënul taxaw ci ginnaaw imaam ilimaan jàng lam yakku lam yakku rek laa wax lam yakku wala isa zulzila foog soo paree nga géem a kaas non imaam bi rakkam yi c'est trop yonent bi da ne xiyaam xiyaam la wax xiyaam da ngay taxaw yow defoo lu dul fukki rakk wala defoo lu dul juróom-ñetti rakk defoo lu dul xoolal ñi nga xam ne ñoom dañ daan naafila guddi gi ba mu jeex tàkk duñu nelaw allahu akbar nga defa ne ñooñu ëllëg yaa ngi moom mun ngeen mun ngeen xëccoo buntu aljanna munul nekk sunu diine ji sunu diine ji dañ ko yambareel kenn ku nekk ci ñun joxoo diine ji gëddëm moo tax yàlla mu ne wa ma qadarullaha xaqa qadri màggaluñu yàlla nuñ ko war a màggalee da gis koo xam ne yéenewul yàlla lul ci weer wi naafi la yéenewul yàlla lul ñaari ràkka ñaar wala ñeenti ràkk la yéene yàlla ñeenti ràkk wala ñaar te xam ngeen ne yonent bi nee na Aysa nee na yonent bi saa salaam dalaan naafi la fukki ràkk ak ñett ñenn ñi ne juróom ñeenti ràkk ñenn ñi fukk ak benn te yooyu yëpp ay baxara lay jàng ala imran lay jàng ay nisaay ay maida lay jàng allahu akbar xoolal ñun ba pare ñu bëgg a yem ak ñooñu ëllëg kon nañu seetaat suñu bopp nañu xoolaat suñu diine nañu xam ne koor gi bëccëg bi la guddi gi naafila bi la koor gi guddi gi ak bëccëg bi la ba weer wi jeex takk loolu mooy weer woor weeru koor waaye di woor doo naafila bal sax doo julli doo julli xëdd ba pare tëddaat balaa ngay julli 11 heures jot ngay julli suba ku xëdd ba pare kooku est-ce que mu ngi woor ñooñu la yonent bi naan ruba saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash yonent bi nee na am na ku woor weeru koor ba mu jeex xam ngeen lan la ci am saaba yi na ko lan mu ne mar ak xiif yal nañu yàlla musal mbokk yi weeru koor a ngi nii di ñu woo naan yaa ayyuhal muqsir e yow mi gàttañlu yow mi nga xam ne munoo sawar ci tiyaaba haza shahrun karim weer wu tedd ngi nii fursatun la taud ah temps temps boo xam ne du gaaw a dellu si mu ngi nii weer wi weeru tuub la fi mu ne ku tuub yàlla baal ko fursatun la taud am nga temps bu dul gaaw a dellu si wal inaaba gaawal nga tuub nga dellu ci yàlla war rujuu ilayhi dawal faxal dellul ci sa borom tuubal say bakkaar mbokk yi ñun ñëpp dañoo fees dala ki bakkaar kull ibni aadama xatta wa xayrul xattaaina tawabin doomu aadama yépp ay defkatu bakkaar lañ yonent bi nee na ki gën a baax ci ñi def bakkaar mooy kii tuub mbokk yi fa isa jaa ramadan walam ta tub su fekkee ci weeru koor lañ nekk tuuboo fa mata ta tuub kañ ngay tuub jadda zamanu wa anta talab bis bu nekk jant xëy fenk soo nga naan dinaa tuub dinaa tuub dinaa tuub ba dee ñëw bett la yóbbu la doo tuub kam taqulu gadan atub gadan atub suba ma tuub suba ma tuub ba dee ñëw daal la yóbbu alaxira tuuboo su weeru koor ñëwee tuuboo kañ ngay tuubati fa ida aqbala siyaam walam taud fa mata taud su weeru koor duggee dellu si woo kañ ngay dellu si yàlla yàlla def ci ñun dégg ak topp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa as-samiul alim الحمد لله وحده الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا إخوة الإيمان ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه وله نصيب من قوله تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أدل أولئك هم الغافلون بقي képp koo xam ne sa melokaan nii la weeru koor ñëw na dellu si woo tuuboo yow rabu àll yi sax ñoo la gën te am nga cër ci aaya bi yàlla wax ne safara dinaa ko feesal ba mu fees del ay nit ak i jinne nit ñoo xam ne dama leen a may xel te xeluwuñ ci pour tuub dellu ci yàlla nit ñoo xam ne dama leen a may bët te gisuñ ci dellu ci yàlla nit ñoo xam ne dama leen defal ay nopp te duñu dégg ba dellu ci yàlla yàlla mu ne nit ñooñu ma may ay xol te duñ ci xalaat xel duñ ci xalaat ma defal leen ay nopp duñu dégg ma defal leen xol duñu xalaat ci xol bi yàlla nee na ñii ay bàyyi ma ñoo leen gëm ulaika kal an'am bu yemoon foofu sax mu neex waaye mu ne bal hum addal ñii ñoo gën a sànk bàyyi ma yi mbokk yi wa man kaanat haasihi haalu képp koo xam ne lii mooy sa programme yow nii nga mel lànk weeru koor bañ di cëppi-cëppi di lekk kanaan wallahi borom bi nee na rabu àll yi ñoo la gën ñooñ la yàlla naan summa radannaahu asfala saafilin fa kasirun min haulaai ljuhaal bëri na tey ci ñu réer ñu mel nii du ñu julli lu dul weeru koor du ñu jàng alxuraan lu dul weeru koor du ñu tudd yàlla lu dul weeru koor du ñu màggal yàlla lu dul weeru koor du ñu moytandiku bàkkaar yu mag yi lu dul ci weeru koor te sax dañuy gaaw weeru koor jeex dana leen jaral ñu jënd fët wala ñu jënd bic wala ñu jënd agenda di xoos jour yi di ko rëdd tey lañ am cinq tey la six tey la dix allahu akbar ngir rek gaawantu mooy yàlla tabaraka wa taala mbokk yi weeru koor du mbugal weer la wu ñuy jaamu yàlla waaye du mbugal su ab julit wooree nga xam ne dafa war a liggéey dafa war a yëngatu warul deedeelu warul tilim warul furaase warul weex warul rey boppam yonent bi gis na benn waay buy ñëkk-ñëkklu mu ne ko maali araka abu san lu tax ma gis la nga ñëkk waa ji ne ko damaa woor yonent bi ne ko asiyaamu laysa bi azab koor du mbugal allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة